wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi communiqué bii mi ngi bàyyikoo ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa xalif général de Mouride jaar ci rakkam Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke tey jii ci dibeer ji yemoo ak juróom-ñaari fan ci weeru tubaab dëppoo ak fukk fukki fan ak ñeent ci weeru rajab sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di yëkkati ay kàddu ginnaaw bu mu santee mbooleem njabootu sëriñ Touba gépp santit mbooleem taalibéy sëriñ Touba yépp sëriñ bi nee ne mu ngi ñuy nuyu te duñu sant bu baax ci ndigal yi nga xam ne daana ko yëkkati te lum ci yëkkati gis na ne ànd nañ kook moom defal ko ko nam ko bëgge sëriñ bi nag di wax ne dëkk bii de li ko ci war mooy sàmm ak fàttale mu bëgg nag sàmm googu ñun ñëpp ñu ànd kook moom sàmmale ko ko te loolu mooy sàmm war mooy dëkk bii di Touba ni nga xam ne nii la ko Serigne Touba bëggee way juram yu baax yi fi nekkoon it daan ko santaane te di ko fàttali ba ci magam yu baax yi nga xam ne ñoom la fi wuutu ñoom ñëpp ku ne xam na ne seen kàddu buñ ko masaa yëkkati ci sàmm war may dëkk bi ak sàmm war may waa dëkk bi rek la sëriñ Muntaxa nag wax ne xew-xew yi nga xam ne moo am ci àdduna mu ngi sant bu baax a baax ci li nga xam ne moo jot a ci doxin wi nga xam ne waa dëkk bi doxee nañ ko ci di leen ñaaxaatit nag ne bëgg na daal ñu maase sàmmule ko war may dëkk bi ba lépp luy nuru manifestation ak ya ko ya ca aju mi ngi ñaan bu ko kenn defee ci dëkk bii di Touba rawatina ndaw ñi nee na na ko mag ñi daan waxe ku dem ba mënoo koo ñàkk a def na nga génn suufu Touba seet faneen foo ko defee waaye daal mi ngi ñaan bu baax a baax te di leen ci séentu nag yaakaar na da ngeen ko ko defal ñu sàmmale ko war may dëkk bi boo fi kenn def manifestation ak li ko lu ca aju sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa nag nee na mi ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi te defal ko waa réew mi di sant ñëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.